président Macky Sall dama ko mere. mais mënoon ñu ko am sax euh, parce que bi processus bi commencé euh, ba ñu war dem euh, élection ba ñu waroon dem campagne le trois le trois février. Mm -hmm. euh, les choses se passaient bien. on aurait dû faire l'économie d'une crise qui nous qui nous a empêtré euh, des, des des offres politiques. crise crise boobu moo ñu topp moo ñu topp ba léegi. crise euh, ban bu 2021 wala bu mujj bi bi mujj def ni nu mu ñu toppee ba léegi si eurobond yi ngay wax ci ci bi xam nga loolu la ñu woowee risque pays hmm. dëkk boo ko déstabiliser rek euh, le le marché day xaw a ragal balaa le marché di di corriger wu ça prend hmm. moo tax président du fooyee président Macky Sall stabilité réew mi dafa fooyee dafa mel ni kuy foo quoi euh, intérêt boppam wala intérêt partem da doon jël décision yoo xamante ni day impacté wu à moyen et long terme sur la réputation du Sénégal parce que dëkk réputation rek mooy dëkk. parce que bi ñu reporté élection yi dafa am une intervention mondiale tout à fait euh, ñu tension yi commencé moor yi commencé waat euh, Sénégal nekk l' actualité un peu partout euh, donc partenaires yi reculé am na ay décaissement yu ñu waroon def sax dañu ko bloqué woon ba mois dernier lañ ñu koy doog a décaissé mais tout à fait parce que à un moment donné Sénégal bi ñu xamoon mu nekkoon centre démocratie Euh, démocratie bi maintenant dafa dafa xawoon sooxe mais heureusement comme je le dis souvent le peuple sénégale est très démocratique homme politique yi mën nañoo nekk ku yor pouvoir di jaay doole mais le peuple est foncièrement démocratique président Macky Sall bon je me suis dit que euh, li mu nekk ci pouvoir yëpp li mu nekk président comment il peut il pouvait se tromper de peuple comme si xamuloon sénégalais yi man loo dafa ma jaaxal ci moom comment il pouvait jàpp ni Sénégalais yi dañ ko ci dinañ ko ci jàppale. dañ mais loolu man def ma parce que nit da ngay xam peuple bi ngay diriger mais moo tax ivresse du pouvoir baaxul pouvoir boo ci yàggee tuuti da ngay dem ba dootoo considérer nit ñi comme ay citoyens mais da ngay jël sa bopp teg ko foo xamante ni day kawe. jël nit ñi def leen comme ay sujet jàpp nii loo leen def loolu dañ ko def euh, loo bëgg rek après quelque temps dinañ yuuxu yuuxu après mu jàll. parce que Sénégal dafa am euh, tradition électorale bu bu bu mouvementée Euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, partenaires euh, techniques et financier yi xamoon nañu ko ci ci Sénégal mhm. et d'ailleurs Sénégal souvent bu ñu demee vers année électorale boo xam ne présidentielle la mhm. da ngay gis un ralentissement de de de l'économie mhm. ñenn ñi tamit partenaires yi tamit xaw a ralentir mais ñoom schéma bi ñu jàppoon dañ dañ doon wax ne euh, les Sénégalais savent toujours jusqu'où na pas aller les Sénégalais finissent toujours par trouver euh, la la la bonne option gis-gis boobu la ñu amoon euh, hmm. d'ailleurs en 2000 après les événements de 2021 hmm. euh, foogoon nañu ne euh, le taux de de de d'investissement direct étranger au Sénégal dina wàcc parce que le Sénégal est devenu instable mais hmm. dafa yokku ñu placé wu parmi les cinq premiers en en, en Afrique mais bu 2024 bi Euh, dafa mel ni dafa créer dafa teg un précédent euh, boo xam ne nag cette fois-ci le doute dafa emporter ñi nga xam ne euh, ñoom ñooy les acteurs de l'économie mondiale. parce que muy les partenaires internationaux muy les chancelleries yi fi nekk xam nañ ni Sénégal changé nañu élection législative changé nañu élection locale mais à partir des années quatre-vingt élection présidentielle kenn mësutu ko laal. moo tax bi ko euh, xamoon nañ ni fu fu yëf yi lu mu mën métti métti métti élection présidentielle dañ koy organiser à date mais bañ ko laalee nag on s'est dit que président Macky Sall lan moo nekk ci boppam te avant euh, mu koy laal yu mu doon utiliser bu ngeen jubawul y a des xaw ma lan de euh, ñi nga xamante ni org des corps organisés tout cela nit ñi dañu tiit te comme eh, kuy investissement xaalis bëggul coow nu ñu koy waxee dans le monde des affaires ñiy investir dañ naa non dañuy taxaw. te ba bu ñu taxawee léegi le marché day enregistrer information comme Sénégal dafa na ci zone bu instable day mel ni avion bu na ci zone bu instable ñëppay téye seen xaalis et heureusement je pense que avec euh, peuple bi lu mu lu mu def organisation internationale lu ñu téye seen xaalis loolu dafa tax président Macky Sall xam ni euh, bu demee aussi day day sonal boppam maintenant nag booy boo yàqee réputation du Sénégal Sénégal du dëkk bu mag ci àdduna bi sur le plan économique il faut du temps pour nit ñi xam ne yi fi changé na temps boobu nag après da nga koy fay parce que le risque pays mooy loolu moo tax dëkk kenn du ko yor bëgg ko bëgg waa dëkk ba di di jël ay décisions yoo xamante ni l'impact c'est juste euh, xëy na yàq réputation dëkk bi la réputation du Sénégal avait pris un coup maintenant après les élections le Sénégal dafa regagner waat euh, sa réputation maintenant le marché nag nu muy ajusté woo du du rapide du gaaw par rapport ak kii euh, si ajoute aussi que euh, bon c'est un technique mais dans le monde que ce soit la banque centrale européenne seen taux directeur mi ngi ci 4 cent boo demee euh, euh, la réserve fédérale seen taux mi ngi ci 2,6 pour cent adduna bi inflation dafa commencé bëri ci Europe Europe ñu ngi ci 10 pour cent donc pour inflation bëri les les banques centrales dañuy augmenter seen taux directeur te bu ñu augmenté taux directeur dañu bëgg xaalis bi cher sur le marché pour nit ñi bañ a leb parce qu'il y a trop d'argent sur le marché boo ko bëggee wàññi taux yi ngay yëkkati malheureusement euh, au temps ba ñuy leb ay 2021 2020 le le taux euh, directeur était de 0 pour cent aujourd'hui en Europe c'est pour cent euh, aux États-Unis c'est à 2,6